mënoon naa bàyyi euh, autorité administrative yi wala ministre de l'intérieur euh, ak yenn jëwri ji ñu gérer ko keroog bi may ñëw Colobane dama de dama fa ñëw ci turu président de la république am message bu ñu doon délivré kon defe naa euh, sëñ bi wax na ko léegi ni mu amee. Colobane la amee fépp daanaka ci Sénégal muy constat général ñu nag na Sénégalais yi ñoo fal son excellence président Bassirou Diomaye Faye te bu ñu koy fal dañ ko jox mandat bu leer ñu koy fal sexalul nit ñi suukar séddalewul xaalis dafa ñëw ak programme teg ko ci jub jubal ak jubbanti teg ko ci defar réew mi teg ko ci yoon te yoon weesuwul li nga xam ne mooy ay charte yu ñu tëral ci pàcc bu ne ñu fexe ba ñépp doxal ko te ñépp yem ci nag amul borom daraja amul néew di doole ñaareel bi am mooy te boobu day nekk ci ñaari côté yi parce que loolu dama koy wax ci turu

alerter bàyyi nag ñi war a def ñu def noonu la réew di doxee kon souvent dafa am ñaar yenn problème bi mu commencé am gis nañ ñenn ñu ne way waxuñu ñu woon lii war nañ ñu et cetera déedéet cest à suñu gouvernement du si biir benn pression wala benn santage ñépp la njaboote te dina leen jaboote teg ko ci yërmande mais yërmande dàqantewul nag ak fermeté parce que léeg sa doom bi nga jur sax defe naa kenn jurul doom ba pare ñàkk koo yërëm waaye léeg-léeg sax nga karawaase ko tuuti parce que def na lu ëpp kon quelque fois pour le bien des gens et pour le bien collectif di nga dëgëral fu dëgëral waree mais dañ ne ci réew moo xam ne rapport bi am diggante bi daan am bokk diggante état ak nit ñi moy toujours rapport de pression la de chantage de menace bu état bi deful li ñun li wala état bi war nañu wala dootu ñuko wotel wala wuñ ko woon ngir lii déedéet ñun nekkuñu ci dynamique gu xool ay mandat mandat bo dee ñëw rek dina ñëw yalla koy joxe lañ ci wara a def nañ ko def mais mandat bi ñu jox ni pour ñu defar réew mi liñ ci wara def pour réew mi defarul nañ ko def bu ñu ci ci pandaw Sénégalais bu ne dina xol est-ce que résultat ñew na wala ñëwul. mu mu xool nu muy tànnee ci base boobu moo tax duñu duñu nangu ay riverains di régler seen bopp autant it commerçant mënul ne sama njëriñu bopp rek laa xool ba tax dañ maa war a bàyyi parce que ndaw laa dama war a liggéey ah suñu deful lii dañuy dem agressé ji wala dañuy dem déedéet bëgg a liggéey du tax nga lor keneen loolu mënul ne et y a un juste équilibre à trouver entre tout ça li nga xam ne lu leer la te lu ñu mënul nangu te instruction yi ñu joxe nag fépp la ci marché yépp ci senegal ci fépp la mooy tali bu ñu defar nag boo guddoon ne ko defaral koy trottoir mënuñu nangu nit ñëw bloqué tali boobu ba oto mënatu faa jaar kooku moom duñ ko nangul kenn parce que loraange suut loolu dërëm bi mu war a am warul tax ñu bloqué benn tali carrément ba oto mënu faa jaar kooku du bokk ci tolérance bi école xam nga jàng dafa am lu mu àndul man ma ñëwee Ziguinchor am na école boo xam ne li ko wër yépp ay cantine lañ ko defoon te ekol école bi ñoo luwee cantine yi mais dama ñëw ne dañ toj cantine yépp parce que école àndul ak cantine tout tànk bu am cinq ans sept ans huit ans dem janggi jaxasoog sok moo xam ne lu ne mun na cee ne loolu amul sax sécurité donc li nekk ci école bi nañu fexe ba école bi mën a fonctionner correctement ta xale yi nekk en sécurité pour seen njàng kooku tam ay directive la yoo xam yu leer la bërëbu fajukaay wax dëgg yàlla amul lu ëpp solo bakkan ak santé loolu moom mooy loo xam kenn du ko lam-lami donc fi nga xam ne nit ñi dañ fay dem faju ji doonte dem na ba jaxasoog marché bi nañu fexe ba danger bu amee ñuy évacuer nit dugg génn bi war naa doon lu yomb yomb yomb kooku tam mënul bokk ci tolérance bi bu weesoo loolu nag yaa ca des la ñuy ñaan ñépp muy riverain yi muy commerçant yi mooy ñu muñalante tuuti ñu muñalante te commerçant yi doon ñoom seen bopp ñu doon les premiers euh, euh, surveillants de leur propre comportement ñoom seen bopp lii ma wax nii ñu tënku ci loolu ñoom bu amee ci seen biir ku war a jargati loolu ñoom njëkk a jóg réglal ko seen bopp day am solo parce que day day gage de responsabilité la population est population Colobane population HLM Marseille, euh, marché Dior euh, Ziguinchor Touba la na

waaye di téye seen loxo it suñu buggee ëppal ndax ndaw moom léeg-léeg yaram day gaaw a tàng te foog na ni mun na fajal boppam lépp mais je crois que tant que ñu ngi doxalee noonu nañ trouver des solutions yoo xam ne incha allah du am problème kon ñu ngi leen di gërëm bu baax salaamaaleykum wa rahmatullah